Euh, voilà ñu ngi fi ak Bamba Kassé mu nekk euh, secrétaire général lu SYNPICS euh, journal syndicat bi nga xamante ni mu uuf journaliste yi nekk ci Sénégal ñu bàyyi ko mu wax ñu li nga xamante ni xalaatam la ci journaliste yi nga xam ne ñu ngi leen di sànni lacrymogène ak journaliste yi nga xam tamit jàpp nañ leen ak ñi nga xam te ni tam ñi ngi ci hôpital parce wax nañu ni am nañ ci ñoo xam ni dañ leen sànni lacrymogène ba fi nekk nii ñu ngi ñu ngi hôpital Bamba yan taxawaay ngeen def wala boog ngeen di am ci situation bi. waaw euh, déjà maa lay gërëm euh, El Hadj euh, li ñu njëkk a def déjà mooy ñëw sur place parce que version yi dafa bëri ah am na ay confrères yu ñu xam yu ñu woo nañu dañu am problème fii à la cité Kër Góor gi donc loolu bu amee li ñu war a def mooy ñëw yegg si xool de visu yu ñëwee wax nañ ñu am na ku ñu jàpp xool nañ effectivement am na benn caméraman bu ñu ñëwee dañ ko jàpp. mais on n'a pas la confirmation parce que yu mel ni bu amee li njëkka def mooy xool d'abord s'il y a des blessés ñu xool naka nañ leen di toppatooyee bu fekkee ni euh, dafa am ñuy jàpp ñu fexe nañ leen di bàyyee après maintenant ñu doog a wax ci situation bi waaw situation bi c'est très simple euh, je viens dama échanger parce que dama échanger ak. Euh, Euh, les autorités du ministère de l'Intérieur euh, li ñu wax c'est très simple euh, ñi nga xamante ne normalement il doit pas y avoir d'entrave et euh, il n'y a pas d'instruction pour qu'on gaze les journalistes maintenant ça on va voir comment est-ce qu'on va régler ça. sama loxo bi day maas quoi. waaw dégg ngeen euh, li mu nga xam moom la Bamba wax muy secrétaire général bu Synpics nee na moom en tant que secretaire général taxawaay moo nekk nii dafa amoon ay yitte ne dafa am ay journalistes yoo xam ne dañ leen. frère ne courez loolu amul am na ay journalistes yoo xam ne dañ leen a gazé dañoo gaañu dem na tam gisu ci gisu ci lenn. donc woo ne kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ministère de l' intérieur pour que ñu xamal leen ni journalistes dañ ñëw pour def seen liggéey. et voilà. maintenant euh, le problème il y a un seul problème. parce que au niveau de l' opérationnalité nee nañ mënuñu distinguer kan mooy journaliste ak kan moo du journaliste. à ce niveau là je voudrais faire une précision. il faut que ce soit clair journaliste Sénégal parce que SYNPICS c'est le syndicat des professionnels le syndicat des professionnels s'occupe des professionnels. les professionnels c'est kii il faut mu leer tamit parce que yàgg nañ ko wax dem leen uti carte dem leen uti carte lu mel nii moo taxoon ñuy wax donc ceux qui ne détiennent pas la carte nationale de presse xaw ma fu di jaar mais vous risquez bu ñu amee problème avec la police euh, wala la gendarmerie wala la FDS loolu ñun duñ ci mën lu bëri il faut mu leer ñi nga xamante ne am nañ seen carte nationale de presse nekk ay journalistes parce que loi bi moo wax loolu code de la moo ne boo bëggee woowee sa bopp journaliste wala technicien da ngay yor carte nationale de presse waxuma carte maison. je parle de la carte nationale de presse mooy carte bi nga xam te ni moom la la waa kër gi di jox. waaw carte maison amatul droit amatul man mii amatuma carte maison. carte nationale de presse. maintenant une fois que carte nationale de presse tu as le droit d'exercer ton métier maintenant dans les limites des contraintes des opérations mais dans tous les cas la police et la gendarmerie dañ la war a sax protéger Et c'est ça que les autorités m'ont dit. Donc maintenant, on va voir l'opérationnalité d'ici une heure. Comment est-ce qu'on va régler ça Ceux qui ont leur carte pourront aller faire le travail. ñeneen ñi nag wax dëgg yàlla duñu bokk ñu sama njaboot. merci beaucoup mooy Bamba Kassé donc mi nga gën a encouragé journalistes yi ñu dem wuti euh, carte de carte nationale euh, de presse parce que carte bi mooy wane nii yow journaliste nga boo ko amulee dégg nga wax bokkoo ci njaboot gi donc boo ko amulee doo journaliste carte nationale de presse nag moom euh, biñ ko waxee biñ ko lancé yàgg na kenn ku nekk vraiment am nga la latitude wala boog disposition yi nga waroon jël yëpp waroon nga ko jël pour am ko malheureusement nag certains ñi ngi ci opération yi te yoruñu yoruñu seen carte presse c'est vraiment euh, loolu lu lu lu c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage que kenn ku ne war nga gànnaaw sa de presse. voilà gis nga jafe-jafe yi nga xam te ni suñu mbokk journalistes yi ñu ngi koy dund euh, tey jii gis nga euh, sunu mbokk waa Dakar ak si ñu ngi sol seen mbaxane seen casque. sol yore seen caméra. ah euh, yore seen euh, masque pour euh, lacrymogène yi toujours ak microbe beeg bi moom kenn du ko fàtte ginnaaw ndax fi moo leen fi indi donc ku ci mel ni ki ki kii dafa mel ni Diallo la waa Diallo la Diallo Diallo loo yor la waaw la yore masque la yore masque la yore kii tam journaliste la soxna si maa ngi lay nuyu ah <laughs> kii moom vraiment masque la casque la boo xam te ni dina tax gars yi di mucc. Euh, lii tam ci la bokk ndaxte brassard ñu wane ne euh, il est de la presse brassard bi ci la bokk ak euh, ak masque bi itam max à gaz bi parce que vraiment ñu ngi. Ah, ak lunettes yi jërëjëf <laughs> donc donc lii dafa war a tax ni. Euh, suñu patron de presse nañu bàyyi xel ni. Euh, journalistes yi dañoo nekk ci jamono joo xam te ni. Mhm. war nañ leen di outiller. Mhm. parce que vraiment li ñu dund jamono yi ak alkaat yi métti na effectivement c'est euh, très difficile je le disais tantôt que ne situation bu inédite la ah boo xam ne en tant que journaliste ñu ngi koy dund parce que tamit il faut comprendre que ne en yi moo ko waral dañ nekk ci période boo xam ne fa ñu jëm ah vraiment ci ay jongante la jongante donc présidentielle Sénégal bu daan toll ci dimension yi également euh, presse bi dafa am tamit nu mu daan taxawee jël ay disposition te day tàmbalee nag ci le journaliste d'abord personnellement mu jël euh, li nga xam ne mooy son courage à deux mains parce que liggéeyam dafa sensible te dafa laaj responsabilité dafa laaj conscience également pour mu def ko euh, dans la plus parfaite des manières moo tax donc li nga gis nii yëpp li nga gis nii yëpp lenn la ci li nga xam ne organe de presse yi war nañ ko assurer seen ay taskatu xabaar parce que tamit booy wàcc sur le ces ces genre de situation war nga jël tes disposition parce que ñi ngi fay fekk tamit ah nekk ci euh, euh, donc euh, les corps de sécurité ñoom dañuy jël seen ay disposition parce que dañuy aar seen bopp yow mi ñëw nag ak bopp neen ak loxo neen ah, buñ la gaañee mel na ni yow it daf la neex quoi parce que xamoon nga ne loolu dina fa am donc yii day baax ah, nga jël disposition am casque am donc des protège ah jël di la luy mën tax ñu reconnaître la loolu noonu yëpp def ci jouer donc euh, lu intéressant la ci voilà euh, jërëjëf euh, nga sunu confrère la mu nekk ci dakaar Actu mu doon expliquer moom taxawaay bi nga xam te ni moom la am wala boog moom la ñu war am parce que tout simplement alkaati yi léegi xàmmeetuñu sàmma booy xàmmeetuñu journaliste bien que ni journaliste yi dañuy sol seen gilet takk seen brassard presse. yore seen micro wala yore sa bic wala yore sa sa mais ñoom dañuy jël ay di la dóor ay ay lacrymogène donc euh, pour pour ñoom pour ñoom pour ñoom pour ñoom la police euh, Samba Boye bëgg journaliste bi euh, foofu ko fariñ euh, man je me dis que ne c'est une pratique boo xam ne je pense c'est nouvel parce que gis daaw ñu ko gis vraiment daaw ñu ko gis lan moo ko waral nag y a des interrogations qui se posent et euh, j'en interpelle quand même toutes les organisations censées défendre les intérêts des journalistes parce que tamit loolu ñoom la concerné pour ñu indi ci ay réponses euh, li nga may laaj nii euh, parce que avant tout man je peux dire également que ñun am nañ ci part de responsabilité notre part de responsabilité mooy lan mooy qu'il faudrait que li nga xam ne mooy suñu métier ñu warmaal ko warmaal bi mooy lan mooy il faut lutter contre les infiltrations souvent dañuy infiltrer que ça soit sur le terrain que ça soit fu ñu manti dem on le sait ñun ñëpp on le reconnaît dañ koy gis di ci teg bët vraiment loolu mooy premier pas bi nga xam ne war nañ ko teg ñu xeex ko ah ku ci nekk koo xam ne journaliste nga tu descends sur le terrain que tu prennes tes responsabilités ah de te conformer avec la loi am carte nationale de presse am également équipement yi war am toutes les euh, dispositions requises quand même pour nga mën a def sa liggéey nu mu waree je pense bien que c'est la base d'abord avant tout balaa loolu nag bu weesoo loolu nag ñu xool nag maintenant euh, les organes de presse nan la ñuy accompagner euh, ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi bañ mën a def seen liggéey nu mu waree mais je pense bien que ne les journalistes et les forces de sécurité son des partenaires sont des partenaires yàgg nañ liggéey ñaata yoon lañu ñu gendarmerie oo ñu ñu ñu couvriral ko événement. ñaata yoon lañ ñu oo ñu ñu ñu accompagner leen pour pour des inaugurations de de de postes de euh, de sécurité et consorts police pareillement les corps de de sécurité ku ci nekk à chaque fois dañuy collaborer ñaata yoon man laa dugu police pour pour pour pour euh, couvrir seen événement ñaata yoon laa dem école de police ñaata yoon laa dem gendarmerie ah donc pour épole leen dans leurs événements dans leur communication et je pense bien que partenaires nous ne sommes pas des ennemis waaye dafa am loo xam ne tamit euh, neexul ci xol mooy que on est là sur le terrain que pour faire notre travail quand même il y des limites ah bu fekkee conditions yi war yëpp remplir nañ ko je pense bien war nañu mën a bàyyi ñu def suñu liggéey nu mu waree bu fekkee rempliroo ko nag sur contrôle sur sur li di laaj amoo ko mais attends ñu ñu xamal ne la newoo ci les dispositions ñu xool na nan lañ a def ak yow. maanaam euh, Moussa su ma la déggee baax mooy euh, police balaa mooy sànni ay lacrymogène. Mhm. au préalable mën a def contrôle. oui mais tel n'est pas le cas malheureusement. bi ñu def contrôle dañuy takk sa brassard di sol sa gilet. Mhm. moo tax sànq ma posé la question question des infiltrations ma ne souvent gis nga infiltration yi mooy tax ñuy cibler la presse di ko tirer mais léeg-léeg tamit maa tey la parce que di nga xàmmee ne kii taskatu xabaar la nga nga ciblé ko nga singale ko dóor ko lacrymogène loolu nag pratique la yoo xam ne on laisse l'opinion quand même interpréter opinion bi la ñuy bàyyil ñoom ñu def ci seen interprétation parce que ñu nit ah donc on est là juste pour faire notre travail en toute responsabilité bu ko weesoo moom le reste opinion bi la ñuy bàyyi rek ñoom ñu jugeel ko seen bopp merci beaucoup euh, Moussa Bey bi nga xam te ne nii euh, journaliste la fële Euh, Dakaractu ñu ngi koy sant di ko gërëm. waa xaaral xaaral waaw mbokk internet gis nga gis nga gànnaayu journaliste yi de ah. vinaigre euh, bi la ñuy jël ah, moom la ñuy bu leen policier sànnee lacrymogène moom la ñoom tam ñu gens ci la ñuy gens pour atténuer effet lacrymogène yi donc léegi mën na jàpp ne journaliste yëpp ay gens maanu euh, kilee la ñu vinaigre te xam naa loolu moom secret bi étudiants ñoo leen ko jox voilà mais amoon fii ay ay wala ay ay jafe-jafe yoo xam ni suñu mbokk journaliste yi dund nañ ko ba tax nga gàddu sa sa butéelu sa butéelu vinaigre bi euh, na lu ngeen dund sànq tey ci suba bi ñuy bi ñuy jàpp euh, bi ñuy gaañ euh, Guy mari Sagna ak beneen député Diatta bi député bu jawaay bi yéen la la ngeen ci daj léegi naa yéen li ngeen daj kenn du ko nettali. waaw li ñu daj kenn du ko nettali parce que effectivement ñun sax li ñu daj depuis démb ci guddi la parce que démb bi ñu toppee convoi bi ba ñu ñëw fa fi nga xam ne mooy cité kër góor gi dañ ñu commencé woon sànni ay gazu lacrymogène ñu tere suñu oto mu dugg n'empêche ñun wàcc nañ ci oto bi dox wan leen ci presse bi la ñu bokk. ñu sol suñu gilet presse mais bi nga xamante dàkk nañu a kii téléphone ngóone suñu caméraman bi tamit ñu nangu lépp loo xam ne matériel bi mu doon filmé la. baal mhm. ngeen di ay journaliste. ngeen mhm. yore seen carte de presse. Mhm. takk ay gilet presse sol ay gilet presse. ñu ñëw nangu seen outil de travail. jërëjëf nangu suñu ay outil de travail ba pare nañu bu ñu dégagé wul fii gazé leen. moom seen chef moom moo ko wax ñu ngi taxaw di ko dégg mu ne bu ñu fa jugewul gazé leen te ak en ce moment mu ngi yoroon suñu ay suñu ay matériel donc dañoo obligé wax ak moom ne ko nekkuñu ay vayu ñëwuñu pour marche dañoo ñëw carrément pour liggéey information bi la ñu soxla donc amoon leen droit benn yoon duñu bund xataal wala di nangu suñu ay matériel ci lañ ñu delloowee suñu ay yëf nañu naka nañu fa jugee bu ñu fa jugewul dañ ñuy gazé ce matin aussi euh, euh, gis nañ li nga xam ne moom moo xew fële ca euh, rond-point cité kër góor gi ndax bi Guy Marius Sagna di ñëw ànd ak euh, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi euh, dañu ànd ak moom ngir xool ndax dina dugg ou pas donc ñun defuñu dara mënoon nañ ñu wax nañ taxaw ci côté bi liggéey mais dañ ñu gazé sànni ñu ay lacrymogène euh, Mouhamed suñu caméraman ci tànk bi lañ ko ko sànni mais heureusement ba li mu sol gudd na duggul ngoone aussi dañ ko gis ba nu mu ñëwee dañ ko ko visé sànni ko ko ci kanam ki nga xam ne tamit moom mooy libaas nekk sunu gaal 24 ci bopp bi la ko sànni journaliste Seneweb bi mu ngi mu ngi hôpital actuellement ndax dafa def crise mu nekk yoo xamante ne journaliste yi ñu ngi koy dund depuis ce matin te arrêté wuñu fu ñu gis ñu booloo dañuy ñëw gazé ñu ay xeer wala ay bant lañu yore wala lu ñu yore bañ leen di gazé micro le journaliste yi yor caméraman yi ak caméra ak seen i gilet seen carte de presse la ñu yor te carte de presse yi ñoom ñoom ñoom gilet yi ñoom ñoo ko joxe te bind nañ ci gilet yi indépendante donc nous ne sommes pas indépendante donc li ñu bind noonu ci gilet bi ñoom gëmuñu ko bu ñu ko gëmoon dinañ bàyyi ñu liggéey mu ñu demee ba caméraman day yor ay matériel am ñu sànni ko journaliste yu yore gilet wam yor carte de presse yor micro ñu ñu gazé ko ba mu tëdd ci la l'hôpital donc mettina moo tax gisoo fi Seneweb gisoo fi Sunugal 24 ndax seeni i journaliste lañu lañu la ñu def loolu noonu ñoom ñooy victimes yi tey Ah, kon mbokk mbokk internet yi dégg ngeen li nga xam ni moom mooy xat-xat wala jafe-jafe yi nga xam te ni mbokk journalistes yi ñu ngi koy dund depuis démb te xam naa ne du démb tey ak suba itamit parce que ñu liggéey rek moo tax a jóg euh, journaliste moom kenn mënu ko aaye liggéey journaliste kenn du ko tere yore micro kenn du ko mën a yore tere bic kenn du ko tere yore caméra kenn du ko tere yore jumtukaay bi nga xam te ni mooy outil de travail mais Sénégal daal moom mooy Sénégalu tey rek waaw vraiment euh, la presse bi vi bi mi ngi dund ay xat-xat yu méttee métti euh, yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura waaye daal Sénégal moom nekk journaliste moom yombul dara métti na lool lool parce que vraiment euh, foogoon nañ ni du ñu toll fii du ñu toll fii ci ay xat-xat ndaxte élection bu jaaree yoon tey fii ci Sénégal. la presse joué na ci plus de cinquante pour cent ndaxte euh, élection yi dañ daan toog rek ñu naan euh, résultat yi sàngam génn résultat sàngam génn bi journalistes yi nag jëlee si jëlee yëf yi en mais di dox di dugg ci bureau de vote par bureau de vote di joxe directement les résultats ci la transparence commencé di génn ndaxte léegi li naan kenn mënu fi sàcc lu dëgg la ndaxte journalistes yi dañuy photo PV yi di ko dugal ci réseaux sociaux yi di ko dugal ci site internet yi di ko dugal ci quotidien yi di ko dugal ci magazine yi donc amatul fenn fenn foo xam te ni euh, nit mën na fa jaar ba euh, exemple yàq élection te mesure démocratie moom ci élection rek lañ ko mën a lañ ko mën a nattee donc te journalistes yi def nañ fi euh, lu rëy rëy rëy ci ci élection yi nga xam te ni mooy am fii ci réew mi donc nañu bàyyi journaliste ñu liggéey seen liggéey du ñu ay nervi du ñu ay samba boy dañuy liggéey seen liggéey te seen liggéey donc la ñuy yem bu fekkee nag police day ñëw teg seen benn cordon de sécurité wala ak ñoom ni ñu ko tuddee nañ wax journaliste yi fii ngeen mën a yem journaliste il est intelligent dof du dof nee ko fii ngeen mën a yem li ci des ñun ñoo ko moom ñu bàyyee leen ñoom li ñu moom te ñun ñu moom waaw loolu moom journaliste yëpp fu ñu daan mës a dajee sax dañ ciy waxtaane ci ci waxtaane demee noonu que ni lépp loo xamante ne nii sécurité la boo xamante ne nii ñoom waa alkaati yi wala boog waa takk der yi teg nañ ko buñ ko franchir buñ ko jéggi ne fu fekk mais bu ñuy yemloo fenn da ngeen di jékki-jékki rek lacrymogène mel ni ah, tulleeg màlle mel ni mbàccum gerte fu ne nit ñi di ci daw di nga gis ay dañ nga sànq témoignage bi concert bi wax am na ci koo xam ne dafay ame crise ma day tali bu dee dafa amee asthme wala sinusite wala feebaru xëtër wala feebaru nooyi yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni euh, suñ mbokk journaliste ñu ngi koy dund te vraiment lu métti métti la.